45 minutes de jeu Sénégal Égypte zéro partout Seigne bi ça va naka tur beeg sant bi. Euh, man maa ngi tudd Khalifa Ababakar Ndiaye. Wa tay Sénégal football final Coupe d'Afrique des Nations diggante moom ak Égypte. 0-0 partout pour le moment No gisee match bi. non pour le moment niñ ko gisee am nañ confiance ce qui reste rek moy ñi jéma assurer assuré bi dugal ko parce que comme final la final ben yoon donc nañu dugal bii rek mu jeex Sadio Mané peut-être raté na penalty bi mais mu ngi ñëw donc boo xoolee procession bi ñu ñëw procession de balle donc ñoo lu ñëw seen camp mais beneen sans après équipe bi joueurs yi dañuy ñu sonnee donc procession bi mën na tourner si contre contre Égypte quoi loolu lu ñu seetlu loolu dañoo gis ne Égypte lu ci ëpp yëpp deuxième mi-temps lay lay ëpp moom soo dañoo gis ne Sénégal premier bi na mais dara génnagul. est-ce que jàpp nga ne deuxième mi-temps bi Égypte mën na ñëw rek fëpp suñu kaw. non non déedéet loolu jàpp ma ko parce que boo xoolee début match bi da ngay xool ñun ñoo leen dominer ñun ñoo leen mën pour le moment donc jàpp naa ni gars yi bu ñu demee deuxième mi-temps dañuy dugal bi incha allah dañuy dugal bi parce que ki gën a compliqué si ñoom mooy Mohamed Salah donc tey boo gisee gars yi dañ ko jël en compte donc yaakaaruma ni tey war nañ ñu mën a jaaxal quoi tey moom dama yaakaar ni coupe rek la ñuy soxla pour le moment. mais dañoo gis ne gars yi dañoo xaw a. gars yi dañoo xaw a géey quoi. non non sénégalais ñoo mel noonu xam nga benn instant da ngay xaw a tiit

coupe la. ñaata ñaata ñaata zéro nga ah mu ne doon 1 0 2 0 ça dépend yàlla xam daal yàlla xam. ñu tur beeg sant bi. waaw El Hadj Sène ñu gën ma xam ci El Sène. waaw tey Sénégal de football euh, final am moom diggante ak Égypte ñu joué 45 minutes bi amul noo gisee match bi. waaw mais confiance rek ah affaire xel mu dal quoi yàgg yàgg day ñëw quoi dina métti nag mais tôt ou tard day ñëw quoi dañuy gagné quoi. mais gëm nga ne Sénégal dañuy génn. gëm naa ko dañuy gagné incha mais bi Sadio Mané raté penalty bi lan la la def. non defuma dara parce que grand jour la quoi grand jour yëpp ay raté penalty quoi. loolu du ak pression finale bi nii Sadio Mané bu sañoon tey jii avant premier mi am na trois bii quoi bu sañoon kon tey bu da defee ci ak yanu finale bi nii bëgg a rek mais tôt ou tard affaire bi ñëw incha allah. exemple boo gisee match bu bu bu jàll bu Égypte euh, automatiquement deuxième mi-temps bi deuxième mi-temps lañ ko gagné. une carte de finale bi deuxième mi lañ ko gagné Égypte opuñu effectif opuñu liñu am Égypte xam la Égypte Sénégal mais Sénégal gagné Égypte parce que dama ko gëm dama ko yeewu bien tay ji xam ne Sénégal day gagné Inch'Allah. barki alxuraanu karim dama koo comme ni ngeen ko déggee rek supporters yi malgré première mi-temps bi 0-0 partout. ba ñoo ngi am confiance ne Sénégal day jël ndam bi ñu xool boo xam match bi nan lay jeexee après ñu indil leen xibaar yi nga xam ne ci lay. russi score nee na 2-0 la Sénégal di dóor Égypte loolu la ma wax. moo ko wax de waxuma ko ah. 2-0 Elsene maa ko